te nit ñëpp war koo xam mooy projet bi projet état du Sénégal maanaam état du Sénégal moo ñëw fii ci Touba gis ni am nañ jafe-jafe ci wàllu ndox rawatina ndox miy jóge ci kaw parce que ndox ñett la ndox miy jóge ci kaw ndox miy jëfandikoo ñun suñu biir kër yi ak ndox miy ball di jóge ci suuf ñetti façon ndox yooyu moom ci Touba te ñett yëpp nag yàlla dafa def mu ñu daje fi ci fii ci barab bi ñu ne fii ngeen dëkk yéen ndox mi nay jógee ci suuf di ball loolu nawet ak muy noor ku ne xam na ni boo gasee tuuti da nga jot ndox nab bi technicien yi mën nañu wax ne sariwul lu tuuti la hmm. donc état du Sénégal li mu sant ONAS mooy réaliser projet boo xam ne ndox yi jógee ci suuf ak yi jógee ci taw bi yëpp ñu jaarale ko ci canaux yi ngay gis mu mën a dem ci fi ñuy wax kër kàmb mu dem kër kàmb gis bassin bi fa nekk xam ni hmm. foofu na mu toll ndox yi Touba yi xajuñ fa mhm. ci li ma jàpp ah, ah. yàlla nag moo xam yàlla nag moom moo xam ay mbiram moo xam mhm. li muy taw nu mu toll moo xam lu muy indi nu mu toll donc ci liggéey boobu lañu nekk pareeguñ mais comme nawet dafa jot màggal gi tam yegg si mhm. ONAS dafa taxaw ne léegi projet bi lii la waxoon waaye gannaaw màggal gi dafa yegg si faw ñu wut ay mesures conservatoires ay li ñuy wax ay mesures transitoires yu ñuy def ngir ndox mi mën a bañ a sonal nit ñi ci jamono màggal loolu moo tax ma ñëw fi tey pour xool liggéey bi fan la toll. Hmm. ñoom techniciens yi indi nañ fi ay ay moto pompe ñaari moto pompe mille mètres cube ku ne xam ne capacité bu rëy la donc ndox poto pompe yooyu ñooy pompe ndox yi fas yéene koo yóbbu kër kab loolu mooy liggéey mais li ma posé sànq li ma laaj sànq c'est important je pense que y a deux choses qu'il faut faire bi jiitu parce que fii bassin la bo xamné arrivé do lay nekk. maanaam ndox yëpp fi lay. fi lay genre exitoire si vous voulez. waaw hmm. c'est un exitoire. je pense que vous avez bien fait de mettre la, la pompe, mais il faut aussi créer un, un, un, bassin. Hmm. une capacité. Ah, il faut qu'un en Chine, nous le matériel, nous fi yatal ko. maanaam buñ ko buñ ñu ko yaatalee dana tax ndox mi mën fee mën a bassin bi jël lu bari. Hmm. bu boobaa pompe yi am njëriñ parce que pompe deux mètres ki mënul xëcc. xëcc ay kii yu ndaw je pense que l'eau c'est fondamental il faut le commencer rapidement. Mm-hmm. beneen bi ci dess. man deewuma fi ngeen wax mais c'est logique. Mm-hmm. s'il il y a des maisons qui sont bu dee am curieux kër yoo xam ni ndox mi mm-hmm. parce que dafa am fu comme tu l'as dit tout à l'heure il faut faire un un canal faut faire un canal même même deux ou trois canaux je pense que deux ou trois comme c'est un quartier qui est grand les gens qui lii jóge fii sont yëpp je pense que c'est ça qu'il faut faire de mon point de vue je ne suis pas technicien mais j'estime que que du point de vue du, ruissellement des eaux et du drainage des eaux on a réglé règle problème

ba ndox mi mën faa jóge te ñoom ñi nga xam ne tam jot nañ leen a fay seen xaalis wax dëgg yàlla ñu ñu dimbale ñu euh, ñu dimbale ñu dem bu ko defee bu ko defee jafe-jafe ONAS mën a mën a liggéey parce que bu ñu fi desee toog fi dañuy bloqué liggéey bi te bu ñu bloqué liggéey bi population wu Touba dañ sama jàpp je pense qu'il faut retenir ces deux mesures là des clats des vannes mm-hmm. Donc aujourd'hui, vous, avez la possibilité de pomper les eaux de, de les immédiatement à Kakap. À vous avez fait les tests. On a fait le tests. Ah ben, on a on trois petites fuites à, l'issue des tests. C'est des fuites pas majeures mhm. On peut gérer d'une manière, soit avec des colliers, mais avec une ressoudure. Donc ils sont en train de chercher les colliers. Donc, on va essayer avec les policiers. Si ça marche, si c'est étanche, Sinon, on amène la, la machine à souder ou souder. Et ces trois petites fuites qui n'empêchent pas les eaux. Mais je veux savoir, le pompage là, c'est le pompage de la nappe ou le pompage qui vient de, qui, des, les eaux qui viennent des conduits. Alors, ici, comme on est sur un point bas, toutes les eaux pluviales vont à terme arriver ici. Vous avez constaté, les dallots sont à 30 mètres du démarrage du, bassin. On va ouvrir un chenal pour permettre à cette eau d'arriver eaux ici ce sont les eaux pluviales dans un premier temps qui sont évacuées. Et après la pluie, quand on constatera on remontée de la nappe, effectivement, on va pomper la nappe. Ok. نار الخل لي